Seydi Gassama ñu ngi lay nuyu di la dalal ci Rewmi FM. maa ngi nuyu euh, auditeurs Rewmi FM yëpp. Mhm. di leen ziare yéen yëpp. ñu fàttali li fi xewoon ci weeru euh, mars deux mille vingt et un at euh, léegi euh, mat na at ndax boobaak léegi nemmeeku ngeen ci ne am na ay dossiers yu ñu jot a def yu ci mel ni ñi ci ñàkk seen bakkan. li ñu mën a wax mooy ñun am na si yéegu ju benn jéego boo xam ne nguur gi def na ko. Mm-hmm. pour mun a leeral li nga xam ne moom moo xewoon mars deux mille vingt et xam ngeen ne mbir bi mu amee nguur waa nguur gi defoon nañu si benn conférence de presse yëgle askan wi ne ñu créé benn commission boo xam ne dina dafay l'enquête pour leeral mbir mi waaye tey mun na wax amul benn acte boo xam ne dañ ko teg buy wane ni que dañu bëgg créer commission bu président bu Sénégal Macky Sall ci weeru décembre bi mujj bi nee na euh, commission boobu euh, maanaam nekkatul à du jour. Mm-hmm. moom lu muy lu lu mu annoncé mooy ay enquêtes yoo xam ne dañ ko def euh, pour leeral situation yi ay enquêtes judiciaires loolu dafa wane ni que mbir mi dañ koy jëlaat teg ko ci loxo tribunal pour que tribunal leeral ko maanaam sur la base des enquêtes yi nga xam ne parquet bi moo koy initier. Mm-hmm. li mu mën a mën a wax mooy l' enquête yooyu ñun dégguñu ci dara ndax am na njaboot yoo xam ne jot nañu déposer ay plainte mm-hmm. fii ci Ndakaaru am na benn njaboot. njabootu Cheikh Wade dañuy déposer seen plainte léegi mu mot at. Euh, Sédhiou tamit am na njabootu benn xale boo xam ne ñàkk na fa loxoom. Mm. loxoom ndeyjooram kooku njabootam ñu ngi déposer plainte depuis le 15 mars. deux mille deux mille vingt et tey amul benn acte instruction boo xam ne dañ ko poser pour mun a leeral ñaari cas yooyu kon li nga moom mooy président annoncé mun naa wax ni dafa amul. Mm-hmm. Euh, dafa amul et dañuy fas maanaam leeral mbir mi dañu fas yéene topp ñi nga xam ne ñoom ñoo def te ñaawteef yooyu ci mois de mars 2021. te nga foog ne lan moo ko waral ba Sénégal dossier bi moo pataaral ci nii. Sénégal dafa am culture boo xam ne culture impunité maanaam takk deer yi état bu fi nekk mu état bu suuf su Abdou Diouf état su Abdoulaye Wade wala Macky Sall ñoom yëpp maanaam li nga xam ne moom la ñu jublu mooy protéger takk deer yi parce que ñu yaakaar ne ñu leen bàyyee ñu leen di topp xëy na leen waxee dem leen. Euh, dóor manifestation yi wala tasay manifestation duñ ko def ni nga xam ne ñoom lañ ko bëggee moo tax dañuy am tendance di leen protéger protection boobu nag euh, impunité fu mu am rek maanaam li ko si doon yaakaar ne lu mu def dara ko du ko ci fekk boobaa li ko neex rek mu def loolu mooy premier problème bi. Mhm. deuxième problème bi mooy euh, maanaam problème formation ah, ah. foo leen fekk ñu ngi bàkku nee na am nañu formation def nañu lii ak lii waaye soo xoolee ni ñuy jëflante ak nit ñi ci mois de mars bi passé da nga xam ne clairement formation amu fi. da mhm. li nga xam ne moom moo xew Parcelles ak Cheikh Wade policier taxaw eh, kii eh, sori la amul benn acte boo xam ne posé la ko pour mun la gaañ nga fetal ko mu daanu mu dee nga ñëw romb ko continuer dem sa yoon loolu mooy wane ni que benn formation amuñu maanaam teeyuñu. ah amuñu retenue ba pare euh, dañ yaakaar ne suñ suñ ko defee tamit nu mu gën a ñaawee dara lañ ci fekk je crois que loolu. Euh, dafa wul ak état de droit dafa dëppwul ak démocratie. nga jàpp ne tamit politique lalu ko ndax il faut le dire contexte bu particulier la 2021 am émeute yu ñu nemmeeku woon euh, benn opposant politique lañ jàpp ay nit wàcc ci mbedd mi Euh, ndax du loolu tamit moo tax dossier bi. man def naa def naa du contexte politique. parce que ñi nga xam ne ñoom ñoo génnoon di manifester ñoom yëpp bokkuñu woon Pastef am na ñoo xam ne bokkuñu Pastef. yoo mhm. xam ne bokkuñu ci politique n'est-ce pas euh, te culture bi ma lay wax ni dafa yàgg ci biir réew mi. Mhm. ndax soo seetee 2011 ak 2012. bi ñoom Macky Sall ak ñoom Moustapha Niass euh, doon manifester contre bi lay Wade am na fukki doomu Sénégal yoo xam ne dañoo ñàkk seen bakkan ci fukk doomu Sénégal yooyu kaaw dem si yàlla Mamadou Diop rek moo amoon atte hmm. te atte boobu sax police yi nga xam ne ñoom ñoo ko rey mais li ñu leen daan ay daan yu woyof la daan yoo xam ne tëddul sax ci biir kaso ñeneen juróom-ñeent sa doomu Sénégal yëpp ñu njëkkoon seen bakkan 2011 ak 2012 amu ci benn suite judiciaire hmm. waaw ñu ngi coow affaire Ndiaga Diouf di ci topp Barthélémy Dias mais ñeneen ñi nga xam ne deewoon nañu 2011 2012 ci manifestation yi juróom-ñeent ñoom lan ci def ci wàllum justice su dee bëgg nañ justice rek. lan lañ ci def concrètement kon am na culture impunité boo xam ne dañ ko fi instauré te suñ ko bàyyee mu law ci biir réew mi moom mooy andi ëllëg fitna parce que nit ñi suñu demee ba xam ne euh, euh, takk deere mun nañu rey ay nit te dara lañ fekk booba dañ jël sa responsabilité. Eh, mm-hmm. responsabilité loolu euh, mun na andi fitna diggante takk deere yi ak citoyen te loolu mooy guerre civile. li jëm ci ndàmpaay yi ndax yéen a ngi jokkoo ak famille yi am na lu ci am comme avancé wala. ñun daal yëguñu benn ndàmpaay boo xam ne famille yi maanaam jot nañ ko yëguñu ko xam nañ ne 2011 2012 état dafa joxoon dafa proposé woon ay njaboot yi euh, ay 5 millions. Mm. am na ñoo xam ne jël nañu am na ñoo xam ne nanguñu jël. Euh, parce que euh, ndàmpaay boobu je crois que vraiment manque de respect la pour pour pour pour état de droit ak manque de respect pour maanaam maanaam njaboot yi. Mm-hmm. Eh? parce que ndàmpaay bi nga xam ne moom moo gën a am solo mooy bi nga xam ne justice moo ko prononcé. Mhm. maanaam ñu àtte nit ki teg ko ay daan teg alamaan euh, lu ki nga xam ne moom moo rey wala bokk son employeur maanaam état Sénégal. Mhm. loolu mooy li gën waaye ñëw di wax nit ñi jël leen cinq millions ngeen noppi bàyyi lépp bu leen topp kenn je que loolu lu ñaaw la ñoom ci seen bopp suñ ko defoon seen njaboot n'est-ce pas duñ ko nangu kon nañu respecté askan wi tuuti. respecté askan wi tuuti xam ne askan wi moo tax ñu toog waaw moo tax mu toog kon su fa nekkee n' est pas na xam ne état askanu Sénégal la état du entité bu imaginaire boo xam ne désincarné askanu Sénégal la kon dafa war a respecté askanu Sénégal. Mhm. xam ne bakkanu nit kenn du ko jënd ak 5 millions kenn du ko jënd ak 5 millions surtout que ñu bëri ñi xam ne gënal ñu àdduna ay ndaw lañu. Mhm. ñii euh, bàyyi nañu ay njaboot. Mhm. kon dañ leen proposer ay somme yu dérisoire pour que ñu noppi bay lépp je crois que loolu dafa ñaaw te c'est manque de respect pour ñi nga xam ne ñoom ñoo gën aduna yéen ngeen ne da ngeen di saisir cour euh, de justice de la CEDEAO euh, lu ngeen ciy xaar. Ah, lu ñu ci xaar mooy dañu yaakaar ne foofu foofu la mbaxana di doon benn parce que su dee ci biir Sénégal état euh, n'est-ce pas def liggéey bi nga xam ne moom la war a def boobaa dañu dem ci fi nga xam ne yoon daf ñu may pour ñu dem foofu mooy cour de justice la CEDEAO yóbbu mbir mi foofu waaye tamit yóbbu ko Nations Unies ci organe Nations Unies mën nañ ko fa yóbbu kon du ñu nangu culture impunité sax ci biir réew mi eh, dañu fas yéene xeex ko te xeex boobu mën nañu ko yóbbu fu sori sori sori sori mën nañu ko yóbbu ba CEDEAO incha allah mun nañ ko yóbbu tamit ba Nations Unies en tout cas am na njaboot yoo xam ne dañuy déterminé pour xeex te ñun dañu pare. n'est-ce pas mettre suñuy moyens pour jàppale leen ñu xee jusqu'au bout pour que état Sénégal ñu mun ko teg daan ñi nga xam ne moom la mérité ci euh, culture imputé bu mu nga saxaar ci biir kon yéen a ngi ciy liggéey nii. <coughs> ñu ngi liggéey tous les jours ak avocats yi ñu ngi ñu ngi waajal mbir mi hmm. euh, tey ñu ngi am benn avocat boo xam ne mu ngi ci biir Casamance hmm. tey ci suba war na déposer benn plainte à Kolda hmm. pour le le jeune Sadio Camara mi nga xam ne dañu ko réewoon Diaobé tey lañ njabootam ci suba gi lay déposer plainte auprès du tribunal de Kolda kon ñu ngi continuer di maanaam répondre aux attentes de toutes les familles mhm. nest pas ñi jot a déposer plainte ak képp ki nga xam ne bëgg nga déposer plainte rek soo jokkoo ak ñun dinañu fexe ba duñ jox la avocat nga déposer tey euh, dëgg la yaakaar ngeen euh, cour de justice amal dogal mais gis nañ ne dogal yu bëri yu cour boobu la di amal euh, Sénégal du ko appliquer waaye teewul yéen a ngi ciy gën a am yaakaar waa yaakaar nañ ne bi yoon dina ko appliquer ndax Macky Sall euh, appliqué na ay décision CEDEAO ci mbiru Mali eh, Macky Sall tëj na frontière Sénégal ak Mali tax na ba port Dakar ñu bëri ñàkk seen liggéey ndax ci marchandise su Mali lañ doon liggéey hmm. tax na ba commerçant yi mënatuñu dem n'est-ce pas euh, Sénégal askan Sénégal mu ngi ci loru askan Mali mu ci loru loolu yëpp ci kaw appliqué décision CEDEAO hmm. kon dañuy yaakaar ne décision CEDEAO su ñëwaatee dina ko appliqué loolu su ko deful moom crédibilité ci boppam moom Macky Sall crédibilité moom moo nekk en mhm. parce que mënoo fi nekk décision justice su la favorable wala boog su nee nga appliqué su la neewul nga ne appliqué je crois que loolu euh, kilifa waru ko def kon ñu ngi xaar. que désormais bépp décision boo xam ne CEDEAO daf ko dogal rek. Mhm. mu appliqué ko nu mu appliqué rigoureusement décision boo xam ne n'est-ce pas. Euh, dañ ko dogal ci mbirum coup d'état bi amoon Mali. monsieur sama ñu waxtaanee la xew ca Ukraine ak invasion russe bi euh, gis nañu taxawaayu Macky Sall en tant que président Union africaine ak kii di Faki euh, ki jiite commission yi ñuy ñaaw lu racisme ga fa nekk waaye teewul ba tey mbir maa ngi fay gën di di bëri ndax ñu ngi koy wane ci réseaux sociaux yi tey seen taxawaay Amnesty International bu àdduna werngel képp. ñun ñu li ñu def mooy yónni ay mission sur place ci euh, frontière u Ukraine ak dëkk yi nga xam ne fala la nit di daaw di laxu te yaakaar nañu du yàgg dinañu am ay ndaw yoo xam ne dinañu ma dugg Ukraine pour constater li nga xam ne moom moo fa xew li mu mën a wax mooy ñu ngi ñaawlu maanaam discrimination de képp koo xam ne yàggoon ci biir Ukraine te ngay daw n'est-ce pas pour laxu muy Pologne wala Roumanie wala beneen réew war nañ la ubbi frontière nest pas te waruñu seet sa der wala ci ban nga bokk. Mhm. loolu mooy lii yoon santaane maanaam droit international mi nga xam ne moom moo ñu lii ñun yëpp en tant que nation en tant que peuple kon ñu ngi condamné discrimination boobu di wax état yi pour ñu respecté ko mhm. ma ñëpp ci nga xam ñu ngi daw ñu mën a jàll ñëw laxu euh, ba bés bi Ukraine seddee ñu mën a delluwaat wala boog ñibbi seen réew. ki foofu la ñuy foofu la ñuy am nationalité. Mm-hmm. waaw loolu mooy suñu position par rapport à cette question. sénégalais yi fi nekk bëgg wutali Ukraine ah. jàppale leen ci xeex bi euh, mu doon laajte wala ñaax gi nga xam ne ambassadeur Ukraine nekk fii ci Sénégal def na ko euh, ñu jàpp ne dafa violer euh, convention de Vienne jëm ci relation <coughs> diplomatique ban jàngat nga ci am. waaw moi je pense que ambassadeur mu ubbi ay buntam ay buntu ambassade di jël ay dossier di recruter ay nit. je crois que loolu moom euh, vraiment lu grave la. Mm. Euh, waru ko def. Mm-hmm. te état am na euh, vraiment obligation. rappeler que alors parce que recruter ay nit pour ñu dem xeexi ci beneen réew. vraiment je pense que lu ëpp la ci ci ci ci ci ci ambassadeur. kon loolu am solo la waaye dama defe ne nguur Sénégal lu ma waroon def rek. warul yem di condamner li nga xam ne moom la ambassade bi di def dafa war a sensibiliser sénégal yi pour que ñu bañ a dem foofu. Mm-hmm. ndax soo leen sensibiliser wul mun nañ jël seen avion dem Pologne su ñu yeggee Pologne wala Roumanie ñu dugg ñu dugg Ukraine dem xëy foofu. ñekk mhm. fa seen bakkan kon ni nga xam ne moom la France def officiellement décourager tous les Français pour ñu dem Ukraine pour dem xeexi nguur gi war a def dafa war a sensibiliser Sénégalais yi pour que ñu bañ a dem foofu ndax dafa sori ak Sénégal. Mhm. ne bokkuñu frontière n'est-ce mhm. vraiment li nga xam moom la ñu am ci suñu biir réew ak ci réew yi ñu wër rek doy nañu. ah que ñu fi jógee naan dañu dem xeexi ci xeex boo xam ne vraiment daf la sori même su dee par ailleurs li xew Ukraine war na métti ku nekk mm-hmm. képp koo xam ne doomu aadama nga rek mm-hmm. soo xoolee image rek eh, war na la métti dara justifié ak dara wul justifié mm-hmm. li nga xam ne moom la Ukraine di eh, Russie di teg tey askanu Ukraine tey ak ak yelleef doomu aadama <coughs> moom doonatul lu ñuy waxtaanee ca Ukraine waaw doonatul lu ñuy waxtaanee parce que ñun ñëpp ñu ngi ko gis bés bu eh, ñu ngi di ci kaw ci kaw ay station rajo di yàq réew mi rëy ay nit n'est-ce pas je crois que loolu c'est contraire au droit international voilà Ukraine réew bu souverain la am indépendance moom moom moom boppam am na droit seet kan lay xaritoo am droit seet kan la bëgg a bokkal bokkal ay ay alliance loolu warul tax ba benn réew di jóg naan daf koy envahir je crois que loolu euh, dañ ko dañ dañ ko weesu. Hmm. li nga xam ne moom mooy xewoon ci année soixante mënatul xew tey au vingt et unième siècle kon nañu bàyyi di mëngale li xew tey Ukraine ak li xew euh, euh, ci affaire missile de Cuba wala boog li xew Irak et cetera dafa bokkul waaw même su dee niiru la sax. warut justifier li nga xam ne moom la Russie def mm-hmm. yëpp moo ko war a moo a ñaawlu mm-hmm. ñu rappeler euh, euh, Vladimir Poutine très rapidement à l'ordre pour que mu bàyyi yàqu-yàqu n'est-ce pas ak nga xam ne mu ngi koy def en ce moment en Ukraine. yan ñooy principes yi nga xam ne moom la ñuy xaar ci droit de la guerre. droit de la guerre mooy euh, respect des des et des infrastructures civiles ah guerre euh, warul tax nga def la neex. Mm. Euh, lépp loo xam ne initiative civile la. maanaam ay ay ay dëkkuwaay maanaam ay ay l'école ay hôpitaux loolu yëpp kenn waru ko bombardé mm-hmm. kenn waru ko bombardé ay civil kenn waru leen jàpp di leen rey mm-hmm. ay combattants yoo xam ne dañu am ay gaañu gaañu ñu di xeex ñooñu kenn waru leen rey loolu la ñu xaar ci Russie waaw li ñu gis ne mooy bombardé nañu ay immeuble hmm. bombardé ay ay ay tours de télévision ay yàqu-yàqu yoo xam ne kenn mënu ko natt ci Ukraine je crois que loolu ay crime de guerre la te loolu vraiment euh, adduna bi yëpp moo ñoo war a ànd n'est-ce pas ñaawlu ko je crois que procureur cour pénal international nee na ubbi na l'enquête l'enquête bi gën a ni ñu permettre ñu gën a xam exactement lan moo fa xew. ñu lay jaajëfal bu baax a baax Seydi Gassama. jërëjëf jërëjëf waa Rewmi FM.